waaw xam nga tey ñoom assurance bi dañ dañ koy yemale si bës si bés bésu làmb ji lañ ko yemale mais mooy li ma rek protection bi war ci mbër yi dañoo desee dox ay charte pour yu ñu leen di protéger pour dellu si waat si kaawu Jules Baldé maa ngi koy jaalee waa Pikine yëpp di ko jaale waa làmb ji di ko jaale képp ka nga xamante ni mbokkam nga surtout maa waa Casamance bi mu sosoo mais tey ñun lañ sa def bañ koy def séentuwuñu woon sax nit ñi wax ko ndax suñu devoir nañ def visa à vis de moom te avant ñun am na ñu fa nekkoon Pape Mbacké nga fa woon euh, Pape Soura nga fa woon Pape Saara nga fa woon euh, nee nañ Pape Gorgui Ndong ak euh, monsieur Arona Dia ñoo ko jël en charge suñuy gërëm nañ gërëm ñooñu ndax tey jii ñoom ñoo def si moom presque trois ans ya nga xamante ni moo ngi feebar su ordonnance amee ñu daw jëndi su bëggee dem hôpital ñu yenu yóbbu ñun dañoo ñëwoon ak suñu yéene ñëwoon ak pour participer si effort yi ñeneen ñi di def far yàlla yàlla jël no avant may ñëw vendredi jour bi ma njëkkee ñëw di ko indil chaise roulante bi dama doon jooy pour dire vrai parce que bi ma ñëwee fekk naa ko ci condition ya nga xam ne jartul nettali mais daal képp kuy nit su fekkee ne am nga xool su dee gis nga ko di nga xamoon ne Jules Baldé mi sonnoon na mais nag daf ci àndoon ak ngëm yàlla ndax ñun kàddu yi ñu doon mujjee wax yëpp suñ ko waxee rek danaan yàlla baax na waaw bi ñu koy yóbbu clinique ba bi ñu koy yóbbee pour defal ko ay perfusion bi mu génnee bi ñuy dellu siwaat si kër gi si si kanam la toog man may dawal mu toog sama wet bi ñëwee ba ci buntu kër gi ñun ñi fi àndoon ak moom yëpp di ko ñaanal pour yàlla yëkkati ko pour war la ne perte na courage yàlla baax na rek la doon wax kon donc moom dem na ba xam ne feebar bi dominé na ko te ñun itam wàll bi ñu si doon mën mooy ñëw. pour ànd ak moom parce que comme li ma wax rek social du jox nit ki mais nekk ak moom la muy metti moo sentir ne kii kat la may metti mettiwu ko mais moo ngi koy bokk di ko naqarlu ndax Jules Baldé Junior képp ka nga xam ne nit nga soo ko gisoon soo rangoñ dina tuuru donte moom soo ñëwee dalay lay dolli moral waaw xam nga foofu ku ko def rek juum parce que doomu aadama bi aussi ñoom ñaar li ñu seq ñoom ñaar ñoo ko xam te doomi adama kenn du ko mere si alalam ndax mën nga maa wax soxla keneen wax ma soxla wër sa gële gën a nekk ci man ma dimbali ko bàyyi sa soxla nit aussi kenn du ko xeebal soutien am kenn du ko xeebal soxlaam mais ñun si li ñu mën a tënku kon ko si média nga ma ko laaj li ñu wax si média si loolu la ñuy tontu muy lan moom moo taxaw ne Ama Baldé moo ngi koy sant di ko gërëm kon Sénégal nañ jël waxi Ama ak wax yi ñi ko waroon dimbali ñu tege ko côté ak wax yi ñi ko dimbali aussi ñu tege ko côté ñu jublu si wax yi ku mel noonu parce que ñoo ngi wax kaawu Jibi saar bi doon ànd ak Ama aussi maanaam ñi ëmb làmb su si kenn feebaree damay ñaan nit ñi rek la ñuy def ci télé nañ ko teg si suuf làmb ñun ñëpp xamante nañu tey koo ci bëgg a am numéro wala koo ci bëgga dégg-dégg ko ñu dox ko ci suuf ñaanal ko ci suuf dimbali ko ci suutre parce que loolu mooy àdduna. waa xam nga tey doomi aadama man dama jàpp ne war nañu mën a trouver beneen système ba nga xamante ni nit ñi dinañ ci jaar pour wut ndimbal pour dimbali doomi aadama.